dama bëggoon indi si maanaam melo yi nga xam ne moom la ab murid war a melowoo loolu sax mooy ëppoon solo ci waxtaan wi waaye mel ni waxtu wi moo moo sori dama wax ci gàttal rek ne ab taalibe li ko war a jëkk ci moom mooy bëgg sëriñ ab sëriñam sëriñ tuba itam leeral na nan la ñuy bëgg ab sëriñ ak lan lan mooy tax nga bëgg sëñ bi leeral na nu ne ba mu waxee kuunu muhibbina li wajhillahi shaykhan yaquudukum anil manaahi da koo firi mu ngi ci majmoo bi wax ne dama leen dénk ngeen bëgg ab sëriñ sëñ bi nga topp nga bëgg ko bëgg wér ndax ku bëgg ab sëriñam yàlla dana dana ko wommete ci sëriñ bi yóbbu na loolu nag ci kaw nga bëgg moom nga bëgg sëñ bi ngir yàlla su fekkee nag da ngaa bëgg sëñ bi ngir lu leneen lu may yàlla doo jariñu ci sëriñ bi te doo mën a jariñu ci beneen sëriñ wax ju am solo mooy sëñ bi boo koy bëgg sëñ Tuubaa ak mboolem sëñ bu ñu fi topp danga koy bëgg te yàlla rekk tax bul jébbalu ci sëriñ ngir situation am ay këram wala ndég maanaam ciwuteem wala dara lu may yàlla rekk na tax sëñ bi dara wax tam ne ànd boo gis yàlla tax alhamdulillahi moo ci mujj bu yàlla taxul nag inna lillahi moo ci mujj mooy poñente dana wax it ne soo bëggee bëgg sab sëriñ yow taalibe bi maa ngi lay digal yoon wi moo ci gën a gaaw mooy topp ay ndigalam moytu ay tereem ak rafet njort ci moom yooyu boo koy def bu yàggee bëgg sëñ bi dana dana sax ci sa xol sëñ bi itam ngir mu bëgg la yoon wi ci gën a gaaw mooy mu gis la ngay sàkku ngërëmul yàlla te ànd ceeg pëstéef ak it lu mu la digal nga gaaw ko def te bañ a diingat ci saayir wala ci baatin da gi itam ne lii wane ne yow murid saadex nga faw nga topp ndigali sëriñ bi sëriñ Tuubaa nag mooy sëriñ bi nga xam ne amul lu keneen di diglewaat ci biir yoon bi ci li ma jàpp kuy digle ca biir ndigali sëriñ Tuubaa yi ngay diglewaat moo tax sëriñ Tuubaa bàyyiwunu ak maanaam lépp lu si war a digle digal nañu ko moo tax murit bi dafa li mu war a njëkk a def mooy jéem a xam li sëñ bi digle mu moy ca sëñ bi li li mu daa digal taalibe bu ko topp la ca jëkk mooy nga jàng te ndigal yi may wax boobu amoon jot gi ba wax ko ci arab danga nga ne day wax ne def leen ko yéen murit yi li ma leen ko digal nga xam ne du ay ku ko def baax naa ku ko defut déedéet digal naa leen yéen murit yépp ngeen jàng te xam ne ku jàngut bu mu yedd ku may boppam loolu mi ngi ci majmuwa bi dañu daa teg ne li ma leen digal ngeen jàng ko nag mooy pas-pasi lislaam yi tegu ci sunna si yonent bi ak jëf yu baax yi la koy defar ak la ko yéwénal ku xamut loolu te laaju ko donte ci wolof bu taseeg boromam ëllëg dana perte loolu Sëñ Tuubaa dañu daa teg it na ngeen jàngal seeni doom ak seeni soxna ak képp ku aju ci yéen li yàlla waral ci yéen waral ko ci ñoom loolu ku ko ci defut des na la ko laaj yowmal xiyaam danaa wax itam ne na ngeen jàpp ci islaam ak imaan ak ihsaan na ngeen di jëfe li ngeen xam te jiital ci faratay sunu borom yi al istixaalu bil faraidi maan qabla siwaha waajibun qad waqaa na ngeen di sellal li ngeen di jëf looy def na yàlla rekk rekk a tax na ngay téye làmmiñ te di di néewal sag lekk murit su bëggee àgg ca àgg waaye faw muy yar biiram bañ ci lekk-lekk bu ëpp Sëñ Tuubaa daa wax ne malaayka yi buñ gisee murit buy xéewlu xéewlu gu rëy dañuy jooy ngir yërëm ko te itam del néewal sa say nelaw te it ab jaxasoo bul ko baril te del jaxasoog ku mata jaxasol ko xam la yok ci sa aduna wala sa alaxira te na ngay selal sa bir ni ngay setale sa cër del sax ci tuddu yalla di jang alquran di julli ci yonente bi ak xet tuddu yalla gu bax te yep qasida euh, yi dajale na xet tuddu yalla yep de leen ami teggin te diko doxale seen ak ñep de leen fonk mag ak seeni wayjur te yërëm xalé te julit ñepp ngeen jox leen cër la tuhin la tantahir wala tasub wala tukhawif musliman wa minhu tub ab julit bul ko gëdd bul ko tital bul ko xass bul ko xop bul ko ragallo borom xam-xam tari na ngeen leen jox cër gañu bax ni ngeen leen seeni ngeen leen na ngeen leen nit ñepp donte duñ ay julit na ngeen leen jox cër yépp indi naa ci bayit yoo xam ne bu ma ko jàngoon da nga yëg ne bi daa wax ne defal defal la wax na ngeen xam ne itam adduna bu leen ko jël dugal ko seeni xol wala sëñ bi daa wax am na loo xam ne Cheikh Ahmad wuldu Hasan moo ko nekk li ci téere bi mu tuddee fatxu samil alim min kusufaati Cheikh Xadim foofu lay jeexale xam na dafa wax ne sëñ Touba dafa dafa dégg ci sëñ Touba mu wax ni adduna de damaa yàgg dàq ma diko daw di daw di daw ba mujj sun borom ne ma taxawal ba ma dafa tomb ab tomb mom señ bi ba ma di tomb bi aduna ñu wërma yep wet yépp mu wërma fa né nak képp ku bëgg aksi fi man da ngay jéggi àdduna doog aksi fi man moy ak dëdd sama kelas gi yépp aduna sama bañ ca yemee muy señ tuwa dim ko mom dañ ko jël di dundé dundee ko xewloo moom waaye <laughs> nañu dem dem ci señ ba te fekk faaw nga jéggi àdduna doo ak àgg ci sëñ bi moo tax sëñ bi daa wax ne na ngeen génne àdduna ci seen xol tey sant yàlla waxtu wu ne tey tuub te li ngeen yor ngeen di ci joxe te yàlla tax tey jihaad ak seeni i bakkan tey muñ tey woyfal seen bopp tey ji amee jikko ak di defar seen jikko tey bu leen rëy bu leen iñaan bu leen ngistal bu leen dogug mbokk bu leen yàq alali jullit yi bu leen bàyyi julli bu leen fen bu leen jëw bu leen rambaaj bu leen rey bu leen sàcc bu leen lekk ci diine yàlla ji mooy di dunde diine ji ak tarixa bi bu leen nit ñi dégg leen ñor ay weranteek xuloog noono yooyu nangeen ko sori